وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك ني باي خيل فن مانا نيك تي ادونا بي مو خام ني نيك تي ريو مي ولا ني نيك بيتي ريو تاي باي خيل سين سين بام سولو بي موي لا غران سيكري اولف ني نين دي وخدي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كنا بي ني سانتي يالا جولي تي صلى الله عليه وسلم ñoo ngi jaajëfal mboole mbokk yi ne bàyyi xel ak fu mën a ne mbokk yi tey dañu fas yéene dikk ak yéen ci benn secret boo xam ne bu am solo la ci jamono ju ne waaye nag jamono ji dafa raw ndax bari na mbokk yu nuy woo di ñu laaj lii di àndandoo muy faru rab wala coru rab wala jinne lan moo koy dindi lii nag lu gàtt la da gaaw ci lool lool sax moo taxoon tey ñu fas yéene kaa ngir baaxee leen ko waaye bari ñuy sori ci secret bi dëgg rek dan lay wax yow mi gan ci paas bi boo abonné gul ci seen bi nga abonné te partage vidéo bi mu gën a yaatu ndax mboolem vidéo yi ni dugal ci seen bi yëpp ay vidéo njariñ la di la wax yow mi nga xam ne danga nga bëgg def lu seet wala nga bëgg a def lu saxaar mën nga ñu contacter ci numéro bii moo xam nga bëgg l'istixaar à distance wala seet à distance ñaar yëpp dañ koy def wum ci man di doon nga bëgg ko rek contacté ñu ci numéro bii muy 77 684 28 28 bu dee da ngaa nekk Gambie ak li ko wër nga contacté ñu ci plus 220 238 160 29 238 160 29 ñaari numéro yi yëpp ay numéro yi WhatsApp lañu bu dee mbokk yi nga xam ne dañuy yittewoo garab yi kàttan yi muy garab yi mosxam yi ñu di leen di xamal ne disponible na jamono jii ñuy wax ak yéen képp koo xam ne yitte nga ko rek mën nga ñu contacter ci numéro bi xanaa ñu fàttali leen lu néew rek ci njariñul garab gi garabu mosxam dafay yokk man garabu mosxam dafay dundal walax njaan garabu mosxam dafay yokk kattan bu baax a baax a baax yi lu neew la ci ay njariñam képp koo xam ne itoo ko mën nga ñu ci numéro yi allah rabbi mbokk yi secret bi képp koo xam ne <clears throat> lii di àndandoo da la sonal wala nga jàpp ne yow da nga am ay jinne yu la sonal <clears throat> nga bëgg a tàggu ak moom fexeel ba def lii wutal kayit nga bind ci billahi min rajim arrahim bisimillahi jinni ahadu allahu jinni aljinnu wa insa allahu aljinnu falfah fahu fa fa fa ma ma ma fa ya ma ya howo fal li fexeel ba bind ko saafara nga bind ko juróom ñaari yoon di ci sangu di ci naan maanaam boo koy def diir bu gàtt gàtt gàtt bu fekkee ne loolu nga gisoon mu lay sonal da nga jàppoon ni jinne la wala faru rab incha allah rabbi suñ borom dina ko saafara ci ni mu gën a gaawee incha allah boo ko mënee tamit na ngay wuti reeni ngeer di fexe di ko suuroo lu bari lool lu baax la xam naa fii la jëm ak yéen wasalaamaaleykum